Il faut que la jeunesse se mobilise pour réussir le pari des inscriptions. Cette commission mu nekk dans la ville de Thiès le jeunes yi mobilisé wu parce que le temps bi nga xam ni moom la ñu am pour les inscriptions mënul doy man commune il y a 49 000 électeurs suñu bindee ba fin avril 30 000 électeurs. fayda dem bindu maanaam duñu bokk aéroport ñu ni Thiès Idy moo ko def mais imaginez bu pare woon 70 fu ñu jëm les ministres d'État qui sont là mënuñu am envergure envergure pour faire une siècle wax naa ko fenn danaa ko Augustin Tine c'est un ministre d'État qui gère un ministère de souveraineté communauté rurale la yore de 35 villages mënu faa def dox lu boobu moo mën a liggéey Thiès. du Thierno Alassane Sall. qui gère le ministère des mines qui gère de Thiès moom la ñuy xaar les changements du un petit Talla Sylla bi nga xam ni c'est sur la base la confiance bu Idrissa Amati ko pour mu ñëw jàppale ko du kooku moo war a mën a Labandi Camp ba ñuy def démolition bi ouest la Labandi Camp nekk ñu ne nañ ko jox la ville mais allez compter les poteaux qui s'allument y a plus de cent poteaux qui ne s'allument pas yow nee la yow da nga yow da ngay jël da nga yàq ambition pour a mais lu Idrissa defoon benn amoon pour nga leeral ko nga jëlee ko war nga xam sa bopp nga xam ne yaa ngi Idrissa lu mel ils ne sont pas il faudrait que dans le parti xam lu yor ñu bàyyi ŋarale bi. xam ni nous avons un frère à sauver et buñ koy sauver c'est dans la ville de Thiès que les gens s'inscrivent massivement qu'on massivement pour le frère de pour que ñu xam ni moom c'est la seule alternative crédible au Sénégal buñ ko amee waruñu ko jaaxale moo tax remercie par rapport à votre engagement ñu xam ni ñun man lu may wax je suis sur l'arène politique depuis 88 duñu caaxaan fait de la politique pure et dure du ñu nous allons nous engager parce que nag Idrissa c'est pas ses de maire la ñu nous avons fait la prison pour lui et nous sommes prêts pour retourner en prison moom de l'appeler parce que lu ma C'est lui parfois qui m'envoie des SMS de félicitations. doy na ma je suis sur le terrain ñu liggéey c'est le même cas que Aliou Sow amuñu guddi amuñu bëccëg c'est le même cas. Quand vous me dites un maire d'une commune qui injecte 63 millions pour construire leur marché son marché. Ça c'est extraordinaire. Je suis en train de voir les travaux de de pavage de trottoir du rond-point Guet ba bu génn Kaolack c'est 2 kilomètres 400 dama ne bëggatuma fa gis suuf. sur boulot. Nous Mais ce n'est pas la même chose, parce que y a un maire d'hiver et il y a un maire d'action. Nous maire d'hiver pour top qui nous tente et nous avons des maires qui travaillent. loolu war que loolu mooy dëgg parti bi mais bu fekkee ñu jiit ñu ngi leen di sën a suuf du leen di yàq fan la ñu jëm qu'on soit solidaire que l'assemblée c'est la naa ni am na koo fi wax bu yàggul weddi dindi tuuma la li Lamine fi Lamine daaneele defe naa ni la frère Talla Sylla am na lu mu wax dinaa ko wax nag du question man kenn dégguma may tooñ kenn dégguma may xastaate mais nag am naa fulla ci boo ma waxee ma tontu la parce que déjà ni na ñi deman Italie ñoo ko jaxase ak Idrissa ma ni laa c'est faux kenn jaxase ko ak Idrissa man demal naa Italie maag jatara ak Idrissa mais musuñu fa tudd wóor na Serigne Cheikh Mbacke mi may yaakaar kenn musta tudd Talla ci wetu Idrissa en Italie te donc déjà na defe naa ne bi muy def euh, audience bi passé bu yàggul bi euh, bi ñuy sargal retraité yi wax na ni ñi dem itali ñoo ko jaxase c'est trop tard dafay victimiser wu pour bëgg a jaxase nit ñi naan dañ ko jaxase ak taala bu doon kenn dafa naa ni jaxasoo jaxase ko ak Idrissa nit waru ko mën a wan a xalaat ci suuf parce que fi ko Idrissa jëlee ginnaaw yàlla ak yonent bi jox ko lim ko jox bu demee bay wax naan dañ ko jaxase ak moom dafa naan na xoolaat boppam taala kenn jaxase wala ak Idrissa maa wax loolu parce que yaa ni ñi demoon Italie et moi personnellement j'étais en Italie te kenn musu tudd parce que amuñu sa temps pour wax sa wax na leer bi ci des aussi wax naa ko bërki démb bi nga xamante ni ñu ngi inauguré marché bi wax naa leen ni leen dañoo yàgg xeex Thiès te Thiès nag kenn mënu ko xeex ci Sénégal Thiès kenn mënu ko xeex ci Sénégal comme kenn mënu ko xeex ci Sénégal nag nañu jéem a def lu leer moo tax may lancé appel toujours le président de la République Macky Sall na xoolaat bu baax les hommes ñi muy teg mu teg les hommes qu'il faut à la place qu'il donc loolu mooy li nga xamante ni moom laa koy lancé appel parce que ñi muy teg ñu ngi jaxase par rapport ak programme am bi mu doon def defe naa ne bu ko seetloo xam na ni programme bi mu doon wax rupture ba pare bëgg ni émergence defe naa ne jaaragul ci yoon bi kon nag na xool bu baax li ñuy def bañ na ko ba fonds de dotation yi ñuy wax wax naa ko keroog dootuma ji ñëwaat mais ñun suñu diggante ak ville commune yi li nga xamante ni moom la ñu war a doxal dañoo dem ba jël ko tey bëgg koo delloowaat ci ville bi te defe naa ni loolu waru mën a nekk. loolu moo waral suñu diggante ak ville am problème pour parce que ka fa nekk xaj na na muy doxalee moo leen arranger mais boo demee dakaar la fa xew la xew Tëngéej xewul Thiès et toujours on a des problèmes pourquoi parce que bu doon ñun dong fi nekk mais bi ñu demee ba gis ni gis nañu koo nga xamante ni xalaat na ni war na ñoo mën a waxtaan ak moom lu leen arrangé seen politique ñu bëgg jël la nga xamante ni la acte trois bi définir ñu bëgg koo weddi ba fu ko jël ko jox ko ville et puis dañ ne nag loolu du fi dale tey parce que nag Sénégal dafa am yoon. comme Sénégal dafa am yoon nag nañu on lance un appel au président de la république mu xam ni duñ koo nungu tey duñ ko nungu ëllëg ñu dara pour suñu intérêt bopp mais nag yoon dafa am ci réew mi kon nañu doxal li xam mooy yoon. man dama gis ci seen liggéey gisuma ci dara loo xam ne lu fa la wala ñàkk fayda wala waxante lu ñaaw pendant la campagne da ngeen nekkoon ku jàppale mag yi jàppale mag yi mooy bu ma waree def le quartier yéen a ngi si nga ne bàyyil rek. ñu dem ci quartier bi vraiment liggéey bu ci ëpp yéen a ko nekk defal ba bés bi nga xam ne élection yi ñëw na te loolu lañ doon xaar ci yéen actuellement seen rôle xam ngeen ko yéen a ngi daje di waxtaan yéen a ngi nar a nit ñi pour inscription ci liste électorale te loolu dafa am importance parce que xuloo bee xeex bu fekkente ni am na nit ñi bu ñu inscrire pour dem wote ji ça ne à rien parce que am na yoo xam dañ leen koy santi bu buñ leen ko sànnee appaa la pour ngeen nekk ci di ngañ-ngañi mu mel na tey xaj boo sànni woon yàpp mu nekk ci pendant ce temps yow nga dem wuti ci dara yéen a ngi ci chemin bu baax bi dama ne continuer leen ko nous serons toujours derrière vous àndandoo ki yéen defandoo ki yéen li nga xam ne moom la ñuy defal jigéen ñi nag li may wax rek parce que euh, le président Idrissa Seck déroulé na un programme pour jigéen ñi te li mu ci jiital moo di développement parce que jigéen aussi fokk mu def loo xam ne que ni da ngay am weccit man looloo tax may farataal trop ay formation parce que formation yi mooy tax ngeen mën dem réunion ji ba ñëw ñëw seen kër yi reer dara nekk fa ngeen am itam lu ngeen passé ba nga xam ne lépp du ngeen koy teg ci leader ndax boo tegee lépp ci leader day tax moom itam du am lu mu la jox kon nag jigéen ñi am na programme yoo xam ne dinañ ko dérouler te loolu président Idrissa Seck moo ñu ko demandé ah ci fépp fu mu jaaroon nee na nañ fa jaaraat pour asseoir affaire yu benn loolu la ñuy bëgg a ak yéen ngeen am liggéey loolu defe naa ne am na ci salle bi ñoo xam ne comprendre nañ ko te gis nañ ko barki dem boo ñu ngi jógee Gorom. def nañ fa séminaire boo xam ni naka la ñuy wayale soow naka la ñuy defalee yaourt naka la ñuy defalee fromage bu ñëwee fekk ci céréalu ma jàllo yi dañuy daal di am fonde yeeg yooyu mën a def sax lu fonde à l'école mu remplacer chips yi kon nag ci yooyu la ñuy jéem a seet ba xam ndax dinañu mën a dérouler action yu mel noonu itam def leen ko parce que loolu aussi ci xeex bi la ndax lii ñuy def emploi amul fenn barki dem boo Ndiaye je crois que ni kaawu Fatick ville boo xam ne président de la république fa la nekk on a arrêté vingt jeunes jeunes yi dañ doon taal pneu téye circulation bi pendant quarante minutes à Fatick di réclamer ay emploi tey jii au lieu ñu jox leen emploi ils sont en prison arrêté nañ leen kon nag tey bu diggee waa Thiès gëmmu mu jox leen ko ku joxul Fatick def ko ci kaso bi boo nee Thiès dinaa la defal lii man duma ko gëm voilà kon ci yooyu façon la ñu mën a dem naka la ñuy aider jeunes yi pour la formation naka la ñuy aider jigéen ñi ku leen bëgg a jàppale jàppale leen ci loolu c'est la plus grande bataille parce que bataille itam da nga koy xam doo tëb rek di bataille en leer ak di yuuxu ak di saaga c'est révolu ce n'est pas la politique la politique il faudrait que ñu asseoir une politique de développement boo xam ne dafay jëriñ ba nga xam ne tey doo mën a dem parce que fa ngay dem loo fay wuti bu ñu la joxul dara toogal fa nga toog ka nga nekk fa yéen nag jeunes yi li ñu gën ci yom moo di étique bi ngeen am parce que li ngeen nekk éthique la gis dëkk boo xam ne on a lancé tellement de directeur tellement de ministres loolu yëpp appât la pour ngeen jóge fi ngeen nekk dem topp leen mais yéen a ngi toog fi ngeen nag looloo yokk tax ñu félicité leen yéen da ngeen am jom là où les gens n'ont yéen am ngeen seen éthique foo leen gisee yéen a ngiy wax nous continuerons toujours di leen accompagner di àndandoo ak yéen et nous sommes prêts pour votre programme d'activité je vous remercie